sëñ bay jaay gol bi rek mën naa yore jamono sëñ bay jaay gol bi rek mën naa yore jamono waaw bu ca yàlla boolee nag yow boo ca mënta wax lu baaxit nga noppi ca boo ci mënta bokk ca lu baax la teraanga jee sa maam am defar ko ko sëñ defar defarit nga maandu ca xam ne sëñ tubaa yàllaa ko yëkkati darajati taawlu wa laysa tan xafit wa man nahaa minal waraa xof din xofit waaw ba ci sampam yooyu sëñ Bañ Jaay Gol beeg ñi ca topp ak ca toppaat ak ñi ca toppaat ak ñi ca toppaat mën nañoo jamono waaw kon nag moom comme tuum nga baax la auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokki wala xaddu umooru ñu fas yéene ñëw tontu laaj bi nga xam ni moom la basiiru laajoon démb euh, mu laaj ni ci silsila bi may def di wax ci addawalatul mbakki yiw fi Sénégal bayna xaqiqati wal xiyaal ci seen doxaliin wi nga xamante ni si ñi ngi koy doxale te seex bi sampoon ko muy laaj fan laa sukkandiku ba mën waxtaan di nettali li dawala bi doxe bu ko defee kon loolu pour ma ñëw tontu ci day yomb lool ndax mbir nag boo ca bokkee danga koy xam te man ku ne xam na ni addawalatul mbàkki yu maanaam li seex bi sampon ñu ciy dox booba léegi ku ne xam na ni man euh, samay wayjur ñu ngi ci dawala bi am ñu ngi ci nguur gi ñu ngi ci ñu ngi ci biir nguur gi di ci dox kon loola soo may ñëw di ma ci laaj ay dalil dama ci sawar mhm. ndax nag mbir soo ci wax day fekk nga xam ko waaw waaye mbir nag soo ci xamul waroo caa wax te man euh, boo gisee ma ciy wax kon xam naa ko léegi nag fan laa sukkandiku ba di ci wax dafa leer daal kon bas lii wéral ni man bokk naa ci dawalatu bi nguur gi maanaam samay samay samay samay mbokk ñi ngi ci nguur gi lii wéral loolu dama lay joxoñ téere bu ñuy wax wasilatu jaara wasilatu jaara boo demee da nga ca fekk ni kon man sama maam ci nguur gi ci la nekk dafa leer daal sikkuwul kon amul wer benn werante maanaam ni loolu moom ñëpp seere nañ ko nangu nañ ko ni sama maam mi ngi ci nguur gi ci nguur gi ci la bokk loolu moom leer na nga loolu moom mooy première bi dafa leer naññi te boo demee it ci téere bu ñuy wax waseeta jaara danga fa fekk ni e, moom aw turam manga nga fa ci ñi ñu jox nguur gi ci seex yi maanaam ñi bàmba seexal doonte tax borom téere ba ba mu bindee ba noppi nee na nag ku ngeen ci gisul seenu tur saw turu maam xamal ni man man maa matul rek waaye am na ñoo xam ni mënumaa xam ñëpp waaye ñi nga xam ne daal teg naa leen baaraam nii nii nii nii moom leer na ni ñoom ci seex yi lañ waaye nag du kuñ ci tudd rek bokkoo ci kon loolu dafa leer te moom kon aw turam a nga ca ca téere bu ñuy wax wasila tijaara bu ko defee it eh, bas nga war xam ni dawala bi ni muy doxee li ci ëpp mooy da naan jële naa ci diw mu jële ci diw mu jële ci diw baag ca seex ba waaw noonu moom la yoon wi di mas di doxe mhm. waaw ci xista yu ju bari waaw noonu lay doxe te day wér te xista yooyu day wér waaye nag eh, ñu ñu bari <laughs> dañuy am fu ñuy daw di làqu te foofu buñ fa duggee du baax moo tax ma ne nañ wattu loolu maanaam ñoom lu ñu gisul ci mbindum seex bi dañ koy weddi ma ne leen ngeen defee loolu rek musiba am ndax bu boobaa eh, loolu musiba day am du du lu mu bindul rek euh, du dëgg bu dee loolu la musiba dina am ndax yi gën a màgg si yoon wi karaama yi gën a màgg ci yoon wi seex bi bindu ko dañ ko nettali kon danoo war a gëm nettali waaw danoo war a gëm nettali te loolu mooy addis yi loolu mooy mooy addis yi jële ci diw jële ci diw mbir mi boo xoolee comme ginnaaw moom dañ ko dondale yenente bi sallallahu alayhi wa ni yenente bi alxuraan daan dikke si moom moom noonu la ni ko jibril daa dikkale di bi alxuraan moom noonu la ko ajaa jiil daa di ko indil ay téere di ko indil ay wax su ko defee mu amoon yenente bi amoon ay sahaaba yoo xam ne da leen di nettali moom it dafa amoon ay cheikh cheikh yi ñoo nekk saxaaba yi waaw mbir mbir yi noonu la deme lii seen wuute nag mooy kii mbiram ci jibrilu la daan jógee di bàyyi ko ci yàlla sun borom waayu bi kii nag waayu bi dafa daan ci si ajaajil ibnu liisa waaye nag dak bu ko dikkalee danaan ko si yàlla la jóge direct fekk boobu moom moo ko doon dikkal kon loolu nga bàyyi ko xel léegi nag li nga xam ni mooy problème bi su fekkente ni dañoo bëgg a daw làqu ci ni maanaam lu nu gisul ci wax yu bi ajaa ji andi loolu nekkul loolu kon ba dina am ndax bu boobaa euh, julli gi julli gi ci tukki bi ci géej bi nekku ci waaw nekku ci waaw te loolu ah nit ñu bari gëm nañ ko mhm. loolu ñu ci bari gëm nañ ko léegi nag bu fekkee da ngaa dàq ni ni lu nekkul si téere bi téere bi wàcc ci moom te mooy waayu bi ko bi eh, andil eh, bu boobaa kon loolu nekku ci day day dàqu nag li wér mooy ña nga xam ne ñoo fekkee bind nañ ko bind nañ ni julli bi si géej bi am na waaw dañu ko bindee nag bañ leen laajee ni leen li tax cheikh bi bind ko ñu ni cheikh bi dafa wax ni su ko bindoon si biir téere mi dañ ni da koy def ba pare di ko namoo moo tax mu nettali leen ko kon léegi moo tax cheikh bi danaan nettali bu nettalee Eh, saxaabaam yi saxaabaam yi bind ko tasaare ko yottali seen i taalibe kon man ci gàttal fi ma sukkandiku di wax sama maam moom la sëriñ bi doon wax sama maam di wax samay baay ak mag ña ko toppoon samay baay léegi nag sama maam su ko seex bi ma saa wax mu nettali ay taalibeem ak sama baay léegi nag sama baay nag moom moo ñuy nettaliwaat ak mag ñi ànd ak moom kon foofu la ñuy jëlee nag day bon. ci nga weddi benn mag boo xam ni àndoon na ak suma maam parce que boo weddee mag booba rek weddi nga sama maam te bu saa boo weddee sama maam weddi nga seex bi kon lii wér mooy képp ku weddi sama wax weddi nga suma baay te boo weddee suma baay weddi nga suma maam te bo weddee suma maam weddi nga alxadimu aji liggéeyal ji te mbir yi noonu la deme bu fekkente ne nag si li aju ci presse héritier yu yi maanaam ci sët yi am na ci loo xam ne moom dañ koo fekkel suñu bopp teg ci suñ bët dund ak am gis réalité ba na mu amee voilà loolu ñu teg ci suñ bët mu leer nañ kon loolu laa lu ma la ci doon wax incha allah fii laay yem ak yow ci mbir yooyu na nga jàpp ni daal lépp lu ma nettali xista la boo ni dama ko jëlee ci suma maam suma maam jële ci alxadimu yenn yi suma baay moo ko nettali yenn yi ay dongaam yu dundo ak sama maam doon dund ci jamono boobu am na ñu ci des di dundu ba ba léegi waaye bareetuñ yooyu nettali nañu xissa yi yenn yi moom dañ koo dund fekke ko kon loolu mbir mi demee ma lay fàttali nag yoon wi dafay bon ci suñ la waxalee ni la cheikh bi lii la wax nga di ko laam-laamee wala nga di koy gëstu waaye wa ilaa nga di ci am looy sikki sàkk léegi nag gëmal ba dégg dangay ngay gëm rek amul vérifié amul xool li mu wax daal gëmal min al xadimi ila al xadimi salaamaaleykum wa rahmatullah